wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di tàmbalee ci ziar bi am na yow bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi mu aaral ñu ko mu sàmmal ñu ko ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéey islam yépp mu defe ko ni mu ko bëggee. ñu mu def jàmm lu yaatu ci àddina bi yëpp te bëri ci réew jullit yi wàllu bu yaatu réew mi moom itam wàllam doy sëkk bii nga xam ay boobu ñu day tegtale rek ne suñu moo rekk moo mën a gindi nit moom dong moo mën a dimbali doomu aadama loolu tax ba ku gis tey jéego bii nga xam ne Hizbut Tarqiyyah dox na ko mu jéego bu njëkk ci biir yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na muy jéego yu rafet muy digal lu ñëpp yàkkamti woon muy digal loo xam ne ne nit ku mar lool nga ci kanamam ndox mu sedd guy te neex lool loo xam ne mboolem xol yi mu wàcc yëpp ni ko xol yi nangoo nopp ni ko nopp yi déggee noonu la ne la feeñee ci ak cant mënuñu ndax suñu borom doon na wax ne euh, da doon wax ci aw nit ne leen xéewal gii ma leen defal te muy bëggante gi ngeen bëggante ak soppante gi ngeen soppante daf na ko wallaw anfaqta maa fil ardi jamian maa allafta bayna quluubihim bu ñu la joxoon ak dagg si biir munoo dugal ak cofeel ci xoli kenn muy topp kenn loolu man maa yàlla kon fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaana ma leen dimbale nga xam ne fa asbaxtum bi ni'matihi jooju ci yàlla ni ko jaarale ci moom dëggale ko ci moom te mu doon ni suru gaa yu yépp kon yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla sàmmal yàlla nañ ko yàlla yéegee ay darajaam mu gën a kawe ci diggam ak sëñ Tuubaa bi lay liggéeyal loolu nag kon duñ ci mën a sori ci ay xam ngeen ne tey borom daara ji ñëw na si daaraam sëñ Ahmadou Samb mi ngi nii ànd ak Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf ànd ak ñoom Baye Lamine Fall ànd ak seen Thierno Baye ñoom ànd ak mboolem mur yi nga xam ne yëpp ba ñu leen xamee ba léegi lenn rek la leen xamee mooy laxasaayu di liggéey seen Tuubaa jënd yitte doomu lañ am nasru ayni buñ ko amee lenn doomu la mooy gërëmal seen Tuubaa ni ko sëñ Moutakha di wax ñoom tënku seen bopp tënku kenn ñëw fekk si nii sëñ Maxtaar bii. boroom jàmm ji borom fekk ci tey jii sëñ Mayacine Seck kenn du wax lu weesu rek foo ko gisee sa xel dem ci ab tàngoor sëñ Tuubaa fekk ci itam tey jii ñoom Cheikh Anta sëñ Baba Dia sëñ Moustapha Ndiaye sëriñ Mouhamadou Doxaane bi nga xam ne mooy bégal moo di ci xel de sëñ Tuubaa kon tey jataay bi dong bu fekkoon ne dañ koy jënd da si juddoo ci ay mbégte dafa juddoo ci ay ndam loolu mënu si ko mënu si ko fay kon yal nañu yàlla fayal si Muntaxa yal nañu yàlla fayal si Muntaxa kon damay dox rek jëwriñ yi ñoom nga xam ne ñoom ñooy nas liggéey bi ak doxal su ko defee ñoom ñu eggale li nga xam ne maa des ci liggéey bi alhamdulilahi alladi hadana li hada alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li hada jërë ngeen jëf ci wax matale na kon nag ni wax rek ay mbokk yoo xam ne lim na li ko waral leer na naañ cëslaay bi ndaje bi ñëw nañ ci ñëw ci benn ci seen daare ni bii féetee Daaru Xudóos niñ fi liggéey liggéey nañ fi ak pëstéef ku ko xool ci délégation bi mu muy ku ko xool ci jëmm yi mbégte mi ñu àndee bi ñu fiy ak cawarte yi muy lu ñu fekk fi ñoo xam ne dalal nañ leen ci yaatal boo xam ne lu yaatu la ak ñoom it mbégte ak saafonte bu mat sëkk kon muy benn mbooloo bi ñu waxoon loolu firndewu na fi mu toll nii wér lii nag ni mu ko waxee mi ngi tukkee ci suñu jëwriñ yi muy sëñ Youssou Diop ak sëñ Mbacke Thioune yàlla suñu borom gën a dëgëral seen taxawaay pas-pas bi ñu am ci jëfe ndigal lii nga xam ne moom la sëñ bi wax ba tax ñu posé ay acte nañ def nangam tekki nangam tekki nangam jéego bii bokk ci jéego yi ci jiitu bu deuxième bi troisième bañ ñu ko digalee ñun membres yi sawar nañ ci lool ci tey ñu daje fii ci bés bu màgg bii di guddi àjjuma daal di koy jëfee noonu ñu ko waxee woon ci jëfe nag comme ni ko sëñ bi waxee dafa ànd ak mbégte lool ci niñ ko jëfee kon digal nit loo xam ne da ko yàkkamtoon te bëgg ko booba ndigal moom du taxawaalu te dana danañ ko jëfee loo xam ne ak jant rek lay doon bésub tay bi sant seen Tuubaa la bu wér a tey suba yi leen ko fas yéene defee muy bésub sant seen Tuubaa kon sant seen Tuubaa la boo xam ne bii ñëpp ko ànd di commencé di ko def ñu leen di xamal ñoom jëriñ yooyu ne jéego yii ñu weesu yi ci suñ kanam it luñ daje ba tënk ko buñ ñu ko def loo nu raw niñ ko defee tey ji rek noonu lañ koy defewaat samay kàddu lu bari waaye joxe kàddu la mooy am nañ pas-pasu lépp lu ñu mu jëm ci ñoom nañ xam ne du sooxee te ñoom nag wóolu nañ leen si bi nga xam ne moo joxe ndigal moom def ci xol yi ñëpp nangu ko waxtu waa jot moom mu favorable mu joxe ndigal kon jëfe gi insha allah yàlla nañu may xel moo xam ne bi ak pëstéef boo xam ne jëfe gi dina raw nangu bi ñu ko nangoo man mënuma cee ndax tey ku ne xam ne sama xol fi mu toll maa nag ñi ma doon wax loo ndax li ma bëggoon wax loo mënuma ko wax jërë ngeen jëf inna laa maana ah mën nañu ko déggee. bisimilah barke moom Touba kon yaakaar naa ne samay kàddu. micro bi dañ ko dimtee ko. kàddu yi xam naa lu néew la doon ndax koo xam ne dafa toog ay jëriñam yaakaar naa ne ndigale tax mu wax waaye yaakaar naa ne lii moom xaw ma fi tàmm. ndax sama njëriñ rek laa li may wax si moom xadim laa jël dem bi naa si mataar bi ñuy tollee ci war a nos ndigal yi nee naa ko man gisuma dul toog sa ginnaaw man amul si sama ndax ñu ñaar ma nekk daa ji nekk HLM yow nga nekk daa ji nekk Darou ko ci li xam maay doon sa premier ndongo te lépp loo xamante ni bii li nga xam ne war a liggéey fii la jàppale ba ñëw ne ci unité bi moom ma ñëw laa koy toog sa ginnaaw kon loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne bii daa bëgg moo leen maam daal Touba yëpp xam ko ñu xam ne ñu ñooy Touba Touba nag moo dëkk ñoo ñoo li sëñ bi li ñoo ci war a mën war caa raw te sëñ bi moo ko mën a fay waaye jàpp naa xolam dana seet te yaakaar naa ne xolam seet rek mooy suñu fay aajo tey ëllëg tey mënuñoo am ci kaw suuf lu gën dëggum sëriñ bi kon nañ jàpp ne lu ci waay def bu ne jëndee ko dëggum sëriñ bi loolu bu ñàkk bu ne jëndee ko dëggum sëriñ bi loolu yaakaar naa soo ko defee yaakaar naa bis pénc kenn du la ko wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp si maxaasal jàppale sa premier nombre mooy aw si sam ma jox seen la nga jub mu wëyal liggéey Thank you. xam ne moom sëñ Abdou Dieng ubbee sëñ Abdou Sidi Samb ak sëñ Maxtaar jaar ci moo rek lay tàmbalee muy alhamdulilahi rabbil alamin kàddu yooyu keroog jataay ba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom la ubbee ay kàddu kon mel ni lépp sant suñu borom rek la lii nag ci wax dafa tàbbi ci li sëñ Tuubaa waxoon ne faral léegi ku la maa yar daaw nee na fëx gaaw jëm ci ndigal loo bëgg day waaw fekk sëriñ kon nag yaakaar naa teewaay bii day firndeel ne Cheikh Mamadou Mountakha li mu wax dégg nañ ko te fas nañ ko yéene jëfe tàmbali nañ loolu nag mooy dund bi ñuy wombatal lépp luy ngërëmal sëñ Tuubaa mu di ñu rafet loolu jox ci ci fi nga xam ne murit bu buy dox fa la bëgg àgg mu doon ab saadi kon ku xam na ni cofeel bu fees del bay fengat ci sëñ Tuubaa moo fi dajal mbooloo koo gis tey mbégam kenn mënu ko takk Mahamadou Cheikh yi ngoo sopp sëñ Tuubaa rek li ci des mooy tarkul ixtiraat kon ndigal bi mu jugee déng-déng wala werante wala xalaat amu ci gëm nañ ci saa si ne doon dégg ko di jëfe sarbul ixtiyaar nag mooy lii kon kenn ci ñun tànn tànnul sëñ bi mooy suñu tànn kon nag ñu ngi koy ñaan ci barkeem moom Cheikh Mamadou Mountakha melokaan yooyu Serigne Touba wax ne ci la am pour di dëkkale mu xam ne yéenay dëggal boobu rek moo tax lu ñu mën ak lu ñu xalaat ak lu ñu jàpp ne dëppoon ak ak bëggam ñu ndax nii ñu ko defee nii tey fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci Daaru Xudoos boo demee ca Ndakaaru daara Hizbut Tarqiyyah te waxtu wii kuréel yi noonu lañ ko defee ñu fas ko yéene dolliwaat suul incha allah kon nag ñu ngi ñaan ngërëmul sëriñ bi waa fekk ñu ci ak tawféexam ak ndimbalam ba nii ko Cheikh Mouhamadou Mountakha bëggee ñu yóbbu ko fu kawe suñ jox jërëjëf jërëjëf waaw kon yaakaar naa ne sëñ salaam ci Daaru Xudoos noonu lañ ko fas yéene defee ci daara Hizbut Tarqiyyah te nekk ci yoonu Darou Assane incha allah kuréel yi nii la ñuy dajee ak mbooloo mi ni ko suñu Maxtaar a rek ñu sant Serigne Touba ci taw bi ñu ngi defal digal ñu dimbali ñu tam ci kàttanam ba ñu fas yéene na ko digal loolu. waaw kon itam ñu xam ne day mel ni digal bi kon xëttaloo na ndax ñu ngi may ne ma ca ca nii lañ ko di defee kattalu ko kon mu mel ni sëñ bi moom ndigal la mooy ni dégg nañ ko te sax nañ ko yéene jëfe ci sax mu gërëm tey ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ànd ak ak tawala moo kon nag ndigal laa moom ay jëm murit ay jëm murit ndigal laa moom kon nag ndigal défense ca wéyal leen ca sàmmal nu ndigal yi yal na ko suñu borom sàmmal ca barke Sëriñ Muntaxa ba kenn ku nekk gis ci sa bopp noo ngi ca barke borom Tuuba lépp lu ngeen song yal na ngeen ko daal ca barke Sëriñ man nag lu baax rek lay wut ca Tuuba rek lay seet mooy sama juróom-benn fukki at ak benn ci dëkk bi mooy sama juróom-benn fukki at ak juróom-benn ci dëkk bi waaye ñu mel ni yéen mosuma koo gis ñu jubal ne yéen mosuma koo gis ñu baaxee ne yéen mosuma koo gis damaa wax ne fu ne wax naa ko bu ñëpp meloon ne yéen ku jaay ba ngoon jël muy wuti ci ñoom dal bi ci si mm-hmm. bu ñëpp meloon ne yéen mm-hmm. ku ñëwoon juróom bu ñëwee fekk ko bu ñëpp meloon ne yéen tribunal ba su bu ñëpp meloon ne yéen gendarmerie police du am yéen a jub yéen a baax yéen a bëgg Serigne Touba waaye maa ngi seen gannaaw rek tey ba la bëgg Serigne Touba ok jërëjëf euh, lii de yaakaar naa li doon wax lii mooy firnde bi muy taw fiix yoo xamante ne am nañ ko euh, dawal Cheikh Mawal Mountakha teew bi muy si Abdou Khadir Jaxate nii yaakaar naa kon dañ koy nuyu di ko sant di am mbégte ci teewaay bi nga xamante am na ko ci jataay bi parce jox kàddu mu yëkkati euh, kàddu yi Amen. bi ak nangu waaw seen seen boolowaat bi ku ko gisee rek xam ne saytaane boobu jeex na waaw saytaane boobu jeex na ñoo ngi yàlla bu baax a baax Serigne Touba bi kat looyee ak yërëm kat ak ngërëmam ci barke Serigne Touba Mbass bi salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf waaw. فرد بجاه المصطفى عن أمتي يا مرجا عبدك سامي أمتي فرد بجاه المصطفى عن أمتي يا مرجا عبدك سامي أمتي كنت صلاة وسلاما للنبي بلال وسبي سبي تجنبي سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لغما فقد على للإيمان بفرج يا واهب الأمان الحسن من يديم الرجاء أبليس بالإيمان والإسلام خير بسارة بلا ملام بعضة رحمك الخديم يا خير من يجود بالتقديم فقد ساجوا إليك يا سكور بكرم ومنة وبسكور بحق وجهك الكريم حمله إجابة يا من معك كفله الغريب ومجيب سميا فبالذين آمنوا وأسلموا برأف النجي الذين سلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني بسول مسليا مسلما على مسلما مسلما على رسول الحزب يا من أباني بسرور يا مصطفى بك يا رب يا